jël sa loxo bii di ko nuyoo loxo jigéen joo xam ne ji xaraam na la maanaam man jigéen joo mën a takk rek xaraam na nga jël sa loxo bii di ko ko nuyoo sallallahu alayhi wa sallam nee képp ku koy dafa faat boo dekkee sa loxo bii dañ koy ceene ci sa baat bi ak ceenuk sa war le 15 juillet di date bu tiis dëppoo ak bés bi fi sëriñ Saaliw Sow radiyallahu am anhu bàyyeekoo woon ginnaaw bi mu jeexalee ak dundam ci toolu lislaam ak défendre yoonu murit ak tasawuf ak mottali liggéeyub sëriñ sàmbay radiallahu taala anhu sëriñ Saliou Sow moo ngi gane woon jamono le 7 février 1957 ca Kaolack sëriñ Saliou Sow di doom ci sëriñ Cheikh Malick Sow bokkoon ci magi Cheikh Ibra Fall yi daan ko sàmmal ak juróom sëriñ Saliou Sow waajuram wu jigéen moo ngi tuddoon soxna Umu Kalsoom Njaay sëriñ Saliou Sow bi mu amee cinq ans si ko bàyyeem sëñ Cheikh Malick Sow jébbal turandoom bim ko tuddee di sëriñ Saliou Ñang bu daaru Tenefut ñu gën koo miin ci sëriñ Ngunna nañam bokkoon ci taalibe yi Cheikh Ibra yi daan yar bokkoon ci taalibe yi Cheikh Ibra yar di nijaaye sëñ Modou Aminta Fall daaru Tenefut nag moo ngi nekk ci wetu Gosaas Serigne Saliou Sow nekk ca daaray Serigne Saliou Niang ay at boole jàng ak tarbiyawu ba Serigne Saliou Niang wàcce ko mu delluwaat Kaolack ci ay waajuram nekk ci ab liggéeyam boole ko ak di gëstu xam-xam ci daaray majalis yi jaar na fu bari ci ay daara yu nekk Kaolack ak ay boroomi xam-xam bokk na ca Serigne Muxtaar Jaañ jàng na ci moom grameer arabe Serigne Cheikh Diaw moo ko jàngal téere Serigne Touba yi moo ko jàngal itam xam-xamu arut ak bayyaan Serigne Basirou Ndiaye jàng na si moom wàllu luga maanaam langue arabe Serigne Mansour Niang jàng na si moom téere xam-xam yu wuute Serigne Mohamed Dieye ñu gën ko miin ci oustaz Dieye moo ko jàngal tafsirul quran ci moom la amee diplôme tafsir ginnaaw gi nag ci la gisante ak sëriñ sàmbay mu tegte ko si yoonu tasawu daan ko tegtal ay téerey tasawu mu koy wut di ko jàng ba ni sëriñ Sambay làqoo waaye laata sëriñ Sambay di làqu tuddoon na ñu ko war a wuutu ci xam-xam ci ginnaawam waaye sëriñ Saaliw Sow bokk na ci ñi mu njëkk a tudd Serigne Samb wax na ne Saliou Sow du déglu di wax waaye day dem ca téere ya daldi jàng ba am lu ko leer door wax Serigne Saliou Sow daan def ay tukki ci biir réew Afrique yu mel ni ki Mali Guinée gàmbi Gabon ak Côte d'Ivoire daan def ay waxtaan tamit ci Europe ak Amérique Serigne Saliou Sow ñu xàmmee woon ko ak kàddu gu leer te jolli buy wax day tàbbi sa xol ndax dafa gëmoon li mu doon wax te di ko dund jékku woon fànn yu bari daan tontu ay laaji fiq yu jafe ay waxam yépp lu daan boole jullit yi la woon waaye kenn mësu koo dégg mu wax luy taqale jullit yi mu nekkoon ku gëmoon Serigne Touba nekkoon ku soppoon sëriñ sàmbay nekkoon ku bëgg tasawuf te xamoon ko lool nekkoon ku amoon culture général xamoon lu bari ci ni àdduna bi di doxee ci wàllu politik rawatina monde islamique bi nekkoon ko xamoon histoire nekkoon ku pote bu mën a way bari na xasida yu yu mu way ci arab ak wolof bokk na ci xasida gi bokk na ci xasida gi gën a siiw mu di yaa taalibal xelli mooy xasida bi mu woyoon sëriñ sàmbay te jàng ko ci kanamam lislaam ji sànku ji na woon bàmbaa dab ci biiri noon lislaam ji sànku ji na woon bàmbaa dab ci biiri noon xasida gi am na ñu ne sax sëñ Moustapha Ka moo ko way waaye sëriñ Saliou Sow moo ko way sëriñ Saliou Sow moo ngi fi bàyyeekoo woon dimanche le fin juillet 2018 fekk mu daggoon billet fekk mu daggoon billet avion ba noppi di waaj a dem Amérique ngir teewee Bamba Day ba fay am at mu nekk amoon yéeney jaar Maroc wuti fa ay téere ak nemmeeku ndaw yu yoonu murit yu jàmbaare ya fa nekk di liggéeyal sëriñ Touba ci xam-xam